ñi ngi lay ñaan bokk bu fekkee abonné ko ci suñu chaîne bii di Média Hikma TV nga abonné bés ko notification bi ngir lépp lu ñu dugal nga mën ci jot. Omar ibn ne dox kenn ci saaba yi ne ko yow it jàng nga xabaab yi larati jàng nga mu ne ko bu ma jàngee itam day ku la gën a naqar yi jëkk damaa jàng te gën laa jege mu ne ko kan mu ne ko Fatimata sa jigéen ak jëkkëram ñoom ñëpp ay jullit lañ de mu ne Fatimata sama jigéen jàng na mu ne ko moog jëkkëram yëpp ay jullit lañ Sidina Omar daal di ñëwal kër ga daal di daal di dóor jëkkër yi jigéen bi ba naccal kanam nga jigéen ba jóg nag poñe Sidina Omar xas ko saaga ko ne ko xéefarab xaraam bi jébbalu nañu mu neex la mu naqadi la ànd ak sa torox ak bakkan ñun topp nañu yàlla ak yonentam le loo man defal mu ne man bi may dugg ci jub bi sax mu mu mu xaw a rus nag ndax li mu def gorom bi ci kaw tooñ rek mu ne man bi may dugg néeg bi sax li ma dégg ngeen di wax lan la ñu ne ko téere yàlla bi lañ doon jàng alxuraan mu ne ma seet li ngeen di jàng jigéenam ne ko doo ko seet ndax yéefar nga mësul sangu janaba te alxuraan yàlla dafa wax ne kenn du ko laal lu may ko sangu rek mu ne su ma nag mu ne ko waaw sangu mu sangu ñëw jëkkër jigéen bi yoon ko taa ma ansal naa alayka qur'aan tasxaa illaa tazkiratan liman yaxsaa tanziilan mimman xalaqa arda wa samaawaati wal arda arrahmaanu alal arshi stawaa ah lii rafet na di mu won ko saaru hadiid yi sabbihu lillaahi fi samaawaati wa fi ardi ba ci huwal awwalu wal aaxiru waz zaahir wal mu ne yal na Quraysh dee wax ju rafet ji la Quraysh di daw di ko dawloo nit ñi wan leen ma fu ma mën nekk de ñu daal di ko tegtal ne ko yonent nga ca daaru arxam mu daal di jiwal si ba mu jubee barab ba nit ñi rëj rëj loo laan ñu ne Omar ibn Xataab a ngi ñëw te moo gën a xiis ci ñun sa tu fekk jébbalu na ca démb ja xam sa Abdul Mutalib Xamsatu ne bàyyi leen Omar mu ñëw dafay ñëw rek jébbalu si loolu la mën a def su defee lu ko mooy jaaseem jooja mu gàddu moom laa koy reyere yonent ne bàyyi leen maak moom ba Omar jubee waaw kër ga rek yonent génn gàttandu ko daldi ko poñe pipp ko ne ko Omar dayal fasoo laa day moos lu may la wàcc ci xaar ak samuur wàcc ci yow sidina Omar dal di karkar lox daaru ci suuf ba mu jógee rek ne ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna rasuulullaah nag ñu bég jërëjëf Baye Niass ñi ngi lay ñaan bokk bu fekkee abonné ko ci suñu chaîne bii di Média Hikma TV nga abonné bés ko notification bi ngir lépp lu ñu nga mën ci